FM euh, miroir du Sénégal ñu ngi fii ci hôpital euh, Fann bi nga xamante ni euh, fii nañu denc Papa Thione ngeen gis mobilisation bu mag bi la nga xamante Euh, nit ñi ni ngi ñëw euh, taxawu ko ndax képp ku dégg xibaar bi euh, jóge nga fu ne ñëw fàq si fi nga xamante ni moo di fii ci hôpital Fann nu am mbégte nag jàkkaarloog vraiment ay papa ay xarit ay ndaanan yi nga xamante ni que ci wàllu télévision mun neen wax ni ñoom nooy référence si ku ci mel ni papa. Euh, Bécaye euh, mbay moom laay jox kàddu gi laataa may ñëw sama yeneen papa yu baax yi. Ah, Bécaye waaw waaye man El yaakaar naa. benn la rek benn El la rek. waaw jërëjëf coon de xam nga ni dem bi mu dem ñëpp la bett ñëpp la mett tamit. waaye mbiru yàlla kenn mënu ci dara. mu doon xale boo xam ne nag xale bu baax la. Mhm. xale bu am diine xale bu am jom. xale bu bokk ci famille boo xam ni bi mu ñëwee dafa yokk maanaam euh, taxawaayu famille ba mm-hmm. yaatal xale yu bari di ay mbokkam di ay rakkam di ay magam ñoom ñëpp mu dugal leen ci musique presque seen waa kër yëpp ay woykat lañu mm-hmm. ñu bokkal baay ñu bokkal ndey ñëpp ñëpp ñëpp ñi nga xam ne seen i ndey bokk yëpp ñëpp daf leen dugal ci musique ba pare jàppale leen nag ñu ci mel ne ñoom Assane Ndiaye ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. su may lim du jeex kooku nag moo génn àddina tey mooy loo xam ne diis na métti na wante comme li ñuy wax rek ñu teg ko ci loxo yàlla te di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana waaw dama lay wax ne la liggéeyal na askan bi lu rëy rëy ci wàllu musique ak aar ak culture bokk na ci paroles yi gën a mag ci àddina waxuma sax ci senegal mais ci àddina li mu wax tam ci musique ak tamit fi mu ko véhiculer ak fi mu ko yóbbu doon loo xam ni Sénégal yëpp koy yëg ndax tamit euh, li mu woy Sénégal la ko woyal woyal ko boppam am na morceau yu bari yoo xam ne boo diggee li muy wax nga xam ne li muy wax luy am la bu koy fekk bu ko fekkewul li muy wax tamit jamono la li muy wax tamit doon na loo xam ne du xew yi li mu wax yëpp dara du ci xew yi loolu moo tax ñu def lu dul ñaanal ko yàlla xare ko àjjana te yéex a ñëw wante de dama ne la perte bu mag a mag la pour musique bi ndax ci icône yi la bokk ñi nga xam ne dañ yóbbu musique bi mu dépassé frontières yi yóbbu ko sur le continent et ailleurs à travers le monde donc Thione Ballago sekk daal bàyyi na fi loo xam ni kenn du ko fàtte heureusement bi fi euh, Wally nekkee ak ñeneen ñi ñoom Assane ak ñoom ñëpp ndax lekk bi tamit bi mu ko tegee seen loxo defe naa dafa bëgg ñu yëkkati ko te yaakaar naa ne xale yi tamit dinañ ko yëkkati ba fa mu tëdd ca àjjana yàlla wan ko ni la nga liggéeyoon ba tey yàquwul ndax xale yi nekk ci ginnaaw yëkkati nañu ko te yëkkatiwaay bu rafet. jërëjëf kooku moo di Alaaji Papa Dieng euh, bu euh, 2STV euh, di ndaanaan Sud FM di ndaanaan kuli fadrine di papa di ndijaay di xarit tamit ci vraiment culture sénégalaise ak lu baax li nga xamante ni que dañ koy wax saa su ne ngir rek gën di. li nga xamante ni ñoo di téléspectateurs yi ku ci topp moo di Alaaji Bécaye mbay kenn dootu ko présenté ti di ndaanaan kuli fadrin moom nag personnellement yàgg naa am relation ak Papa Thione loolu nag def ci dëkk euh, tungu ne du teew nii naataan euh, kon Alaaji Bécaye nooy dundee bisub tey bi bis bi bis bu metti bis bu tiis yeewu nañu tey dimanche bu naqari waaye nag yàlla mooy dogal nit ku ñam dund di nga ñam dee mm-hmm. te bi kenn xamul kañ la mm-hmm. lii mooy wane ne rek àdduna jarul dara parce que bis bi day ñëw waaye nag nee noonu boo dee dund dangay def jëfi ku dund ndax bis boo fi jógee te bi muy dund def na li mu war yëpp moom coon nit ku baax dem na sidaat daat nit ku jaboot dem na daat nit ku uufoon njabootu ndeyam ak baayam dem na daat nit ku yërëmoon ay rakam dem na di Alaaji Papa Jeng wax léegi ku ci nekk ci ay rakam bi nga demee ba kii daf laa beral daara wutal la instrument jox la sa yëf nga dem liggéeyi noonu la def addunaam yëpp noonu la ko def te lii yëpp woy na ko waaw woy na adduna ah, woy na dëj woy na dee woy na yàlla te boo seetlee ay paroles yi coon li ci ëpp yàlla la waxoon na ni ah, jamonoy tey ji dee du fi jóg boo deelee fexeel ba sarxe bañ di xawaare te loolu ba tey mu ngi fi te bi mu koy wane woy ak léegi léegi mu mat ëpp na ñaar fukki at kon coon nitu jamono la woon jamono ju nekk rek mën nga cee déglu coon et puis kilifa gu ne mën ngaa déglu coon sekk kilifa diini kilifa aada woyu coon sekk ñëpp mën nañ koo déglu ndaxte bu ci nekk day yar day yeete moo tax tey nag vraiment am na nu lu nu naqari torop ndegamit dañu ciy ànd ci dogal suñu borom bi di ànd ak bërki fan yee daf maa woo ni ma ça ay dix jours ni ma léegi damay génne benn album international damaa bëgg nga sol lu toll ci juróomi yére ngay indi ba ma koy tooñ ma ne ko coon xanaa yaay jënd yére yi mu ne ma ah bi ma lay woyal bantamba ah loo jëndoon yow doo bàyyi xam nga dafa neex non non dafa neexoon de nature noonu la mel ne ko nii nga yooyu naa waa kon dinaa ñëw mu ne ma wutal sa ñetti yére yu ba juróomi yére yu baax nga ñëw defal ma publicité ma ne ko heure boo pare rek wax ma ma ñëw ndeketu dootuma woo ba ma koy xaw ma woon ni coon dootuma tey lay doog a xam ni coon woo te dootuma woo ba mukk ci àddina waaw lii nag yàlla la yàlla lu mu def rek noonu la jaam bu ko xam noppalu njaga mbay loolu la waxoon yàlla moo def li ko neex yàlla ne woon na fii la dina def lépp këti këti am jom ah mu woy ñëpp a ngi ni maa ngi seen maacu ah a ngi fi tey xarit yeeg kóllëre yeeg musiciens yi ñëpp ngi fi bi muy taxaw defal hommage Thione euh, euh, euh, Omar Pène te Omar Pène dafa feebar moom xamul woon ni Omar Pène mii feebar moom moo ko fi jëkk a jóge nga yàlla yàlla dafa garaaw waaw moo tax nanuy jël suñuy mbir di ko teg ci loxol yàlla boo dénkee sa bopp yàlla dootoo sonn ci addina waaw kon yàlla na ko yàlla xare àjjana sidaat coon yàlla na ko yàlla xare àjjana maa ngi fàttali bi may mujjee wax ak moom ci rajo yow laa doon animé invité ko benn 19 heures ñëpp waaw ma woote waxtaan ci ak moom ah, lu boobu laa gëj wax ci rajo mais du tee chaque fois ñuy waxtaan di weccante xalaat yal na ko yàlla xare àjjana yal na ko yàlla xare àjjana mooy kàddu gi nga xamante ni moom la alaaji Bécaye Mbaye euh, yëkkati ñaanal ko ki nga xamante ni moo di Thione Ballago Seck le monde entier a perdu l'Afrique a perdu le Sénégal aussi a perdu un homme de valeur mais aussi un homme Euh, vraiment qui a beaucoup fait pour son pays et puis un homme qui a beaucoup représenté son pays coon fu mu dem rek drapeau Sénégal la mës a yóbbu ñu koy gën di firnde nag euh, su ma jógee ci alaaj Bekay Mbay alaaji Saale Biigé di tamit koo xamante ni mën nañ wax ni c'est un homme de culture euh, alaaji Sa Saala maa ngi lay nuyu d'abord di la wax ni ban yëg-yëg nga am tey. Sidaat maa ngi lay fay bu baax di nuyu Sénégal gépp di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yëgeeg bi ma am mooy yëgeeg bi ñëpp am bi ñu yeewoo tey tiis bu metti la ñu yeewwaale coon dafa nekk suñu mbokk sunu mbokk la ba pare nekk sunu mag man mu nekk sama xarit mhm. man bokk naa ci ñi mu mujjee defal émission télévision parce que émission bi matagul sax un mois mhm. te ñoo ngi waroon def deuxième partie bi mardi passé la ñuy wax téléphone ci guddi ci son bi mu woyoon chauffeur bi booy dawal bul caaxaan bul di gëstu su ma benn jarbaat góor a jum wooy ko jël air bi wooy ko Seydina Mohamed ma envoyé ko lien bi mu déglu ko ni ma ku way lii ma ne ko sama jarbaat góor a mu ma sama kii bi Ballago TV ci émission diine yi morceau bi la ñu jël def ko générique jox ma numéro xale bi moo jox ko ko mu woo ndeysaan mu rafetlu ko lool mu nekkoon koo xam ni homme de culture la homme de valeur la mm-hmm. nekkoon koo xam aussi dafa téye famille am parce que li Bécaye wax léegi rek ma penda coono ko yor jàngal ko mécc Ousmane noonu ba ci Kéba tey nag mu bàyyi fi njaboot njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ci yàlla sunu borom def barke. waali doomam dàll bi papaam soloon moom la sol. kon mun nañ ne tey coon dem na waaye coon a ngi fi. ndaxte yàlla dimbali na ko ci métier mi mu doon yëngu bàyyi na fi doom joo xam ne héritage bi. donn na ko. kon donk dañuy ñaan yàlla rek yàlla bu ko cat jiir ci biir bàmmeel yàlla na ko yàlla boole malaakam yërmande. et puis woy yi mu woy yëpp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 buntu amatul suk rek mooy donc mbetteel day waar day waar day waar alhamdulilah alhamdulilah merci beaucoup jigéen ko moo nekk nii ñoo doon def ay ci coono amiin amiin on tout fait pour ce pays je pense que Thion a vraiment participer aussi à faire rayonner ce qu'on a ce quoi on a. énormément énormément. ci sa teewaay. merci beaucoup kontaan na ci teewaay. merci mais. ah bon nag ñu déglu Baba Maal tamit mu yëkkati ay kaddu bu mu egsee moom ak Youssou Ndour ñu saafonte laata muy dugg ci biir bon nag Baba Maal tey yan kàddu nga ci wax ak mbégte affaire bi ba nga ko yëgee ban impression la la def.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

maa ngi dem Podor dama am réunion mu a xamoon naa ne doo ñëw boobu laa gëj wax ak Thione. ah bon nag kàddu yooyu bi muy kii nga xam ne mooy Thione Seck. di légende ci di bàyyi ci Wally. mën nañu wax ne sama di bàyyi ci yow di yaay ci yow. lan nga yëg yow tey. en tant que artiste musicien Pape xol bu naqari xol bu tiis. ndax euh, Thione sunu ñun ñëpp. duñ ko sax sàllalu papa Thione lañ koy tuddee lañ ko daan woowee. donc tey Sénégal moo perte musique africain moo perte muy sunu papa Thione Ballago Seck ñu am ci naqar nag ndax xajoon na fi ba ci kanam pour wéttalu ñu donc ci dëggoom ci sincérité am ci gëmmoon yàllaam ak aussi nangoo liggéeyam kon ñu ngi koy ñaanal fële mu jëm yàlla na ko fo suruñ boroom teeru yonent bi teeru ko Serigne Touba teeru ko fa jërëjëf fan mu ngoog ngërëm ñeel euh, Sidaat Thioune ak équipe yi nga xamee ni ñoo ñu teewaloon euh, ca suba euh, ca l'hôpital ba fekk fa kilifa yooyu le ñu taataan seen i kaddu ñu def seen i témoignage